alors euh, Boun Dionne. non moom am na expérience honnêtement nekk na premier ministre longtemps def na lu bari donc vraiment am na expérience et puis euh, et puis euh, nit ku moderne la ku dal la. est-ce que mënul profiter parce que est-ce que mënul profiter ci dissension Euh, yi am au sein de de de de de l'APR en tout cas am na ñu bari ñoo xam ne ni peut-être même bu ñu ànd ak Ba ci kaw ci suuf moom lañ àndal loolu am na. ci suuf bu ñu doon lañ am na ay exemples yu mel noonu tu comprends. Mm-hmm. mais xam nga aussi euh, politique li ñu naan appareil da cee baax. Mm-hmm. et je pense que ñoom seen camp. Euh, boo tee appareil benno da ngay am avantage comparatif boo xam ñeneen ñu duñ ko am mais bu fekkee da nga ma laaj ba xam am na profil lu jiite réew mi teg affaire ci yoon tout ça. oui mm-hmm. je crois que am na sérieux boobu. am na profil am na sérieux boobu parce que xam naa ko fréquenté naa ko waxtaan naa ak moom et puis euh, am na lu mu bëgg daal voilà.